mbokk yi arbitre bi sifflé na ci diggante Valdo ak Balz Valdo door na ko léegi Valdo la koy eh, door na ko léegi baa duñ ko dóor mu daanu Valdo door na ko kaaw na eh, Balz Valdo jàppante nañu Valdo Balz door na ko baa ko dóor mu daanu Balz baa ko dóor daanu moo ngay Balsa ngay dóor Valdo nga jàpp rek Balsa ngay dóor eh, Valdo jàmbaar la de Valdo jàmbaar la de ku yemu jël Valdo Balsa oh Valdo Balsa baa du dem Ardo Valdo xoolal na muy doxee Valdo ku yemu jël baaxul xeex ba mu xeex baaxul. bu yàggee loxo bi la ñuy gaañ mooy bu ëmb la génnee ci suuf saa bu dërëm sax bu ëmb ci loxo bi. Hmm. dafay gaañ. arbitre bi sifflé waat na. combat dox ci diggante Valdo ak Balz. ñu ngi lay leewaatu Balz Valdo. Valdo jël na tànk ba léegi waaye jël ma baaxul Valdo da koo bëgg a jàpp waaye du noonu Valdo Valdo Balz Valdo Balz Balz ni muy xeexee baax na <laughs> Balz ni muy xeexee baax na Balz ngay dóor eh foofu dañ koy aaye bàyyi jàmbur Valdo Balz waaw Valdo bi baa duñ ko dóomu Valdo Balzu Valdo Balzu jàppante nañu ñoom ñaar Balzu mi mën a xeex de Valdo ngay dina daanu Valdo dina daanu dina ko dóor daanu dina ko dóor daanu woon na ko daan daana ko ko eh Valdo mi ndaanaan la de Valdo Baz Baz war na ko ndomba war na ko daan na Valdo dafa dafa encaissé ay coup dafa encaissé ay coup Valdo dafa encaissé ay coup daan na Valdo